xalif euh, général bu Thiénaba di ko jox nuyoo xalif généraux yu nekk ci réew mi euh, di nuyu tamit njabootam sëriñ Cheikh Amadou Seck imam ratib euh, sëriñ Alsane Niane Seck chef de village monsieur le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune ci moom la ñuy jaar nuyu le sous-préfet Babacar Wade di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak ñun ñu ngi toog fii ci CLAC bu Thiénaba Gare Euh, toog ak euh, ñi nga xame ni macha allah euh, ñoom ñooy waa TFC TFC nag mooy cana Thiénaba football club bi nga xamee ni macha allah ñoom ñu ngi jëm ci ay rendez-vous yoo xam ne rendez-vous yu ama am solo la ñu toog ak Ilimane Dieng mi nga xam ne moom moo ko jiite muy président bi toog ak Ablaye Diaw di secretaire général bi waaye toogal fi tamit El Hadj mi nga xamee ni moom mooy trésorier bi ñu war a toog nag waxtaan ak sportif yi waxtaan ak waa cana ba Euh, waxtaan ak téléspectateurs yi euh, ci rendez-vous muy assemblée générale boo xam ni war nañ cee jëm dimanche le 4 décembre 2022 euh, ñu war ko def fii ci buntu sous-préfecture bu Thiénaba bëgg cee woo nag waa Thiénaba yépp loolu moo waral toogaay bi xam naa ni bala ñoo dugg ci woote bi dinañ fàttaliku tuuti ci Elimane lan mooy Thiénaba football club ak naka lañ ko formé ak yan jéego lañ ci dox ba tey ñu war a nag jëm ci assemblée général boo xam ne ñu ngi ciy woo wàccana ba yépp ñu war koo bokk. Serigne Ndiame ñu ngi leen di nuyu yéen waa Thiénaba TV Thiénaba 24 ak ko FM ñëw bi nag ñu ciy jiital la xalif général comme ni nga ko waxee rek dañuy sof ci li nga xam ne moom nga fi wax sàng ni nga ko répété wax dëgg yàlla euh, agence nga ko te rafet na lool ci loolu rek lañuy sof euh, li nga wax nag euh, mooy dëgg. tey ñu ngi fi daje tey ngir jëmmal bis boo xam ne wax nga ko muy le 4 bi nga xam ne moom la ñu fas yéene jëm muy le 4 décembre 2022 euh, ñu fas yéene ko defee fii ci sous-préfecture bi tey nag maa ngi fi toog en tant que président bi nga xam ne moom la yàlla def moom la ñu falan depuis 2018 bi nga xamee ne euh, ci initiative boo xam ne ñi ngi ko jëlee ci ku ñuy wax mbay mbay mbay ñang dëkk ba Seck di doomu ba di yëngutu lool ci sport mu amoon idée bu rafet boo xam ne mooy créer une équipe communale boo xam ne cena euh, ba gépp gépp commune ba ñëpp ñoo ci ñoo ci bokk euh, ci loolu nag bi mu ñëwee soumettre ñu idée bi ñu ànd nag ak ak ñoom ñu vraiment ñu constitué woon benn euh, équipe boo xam ne benn bureau boo xam ne ñoo yore woon liggéey bi di ko dox bureau bi mën ma jiite woon ko en tant que président Euh, Ablaye Diaw mi nga xam ne moo nekk nii sama sama càmmoñ euh, nekkan sama secretaire général euh, ak ki nga xam ne mooy El Hadj mi nga xam ne moo ne woon trésorier bi wax dëgg yàlla ñu ci doon dox boobaak léegi depuis 2018 ba léegi yàlla def nag yëf yi nag ñu ñëw ca cëppaandaw gi cëppaandaw gi mooy lan mooy jaar nañ fépp fu ñu war a jaar ba am récipi récépissé bi nga xam ne mooy affiliation bi nga xam ne euh, récépissé bi nga xam ne moom mooy jëmmal euh, association bi muy F Thiénaba FC di Thiénaba football club euh, bi ñu ko amee ba pare nag ñu ne li des nag mooy nañ ko fexe ba nga xam ne au niveau de la fédération sénégal de football ñu affilier fa Euh, su ko defee nag ñu mën a compétir comme suñu xale yi bëgg nañ football euh, te développement kese ñun moo ñu si dugalan Thiénaba euh, ñu gis xale yi di ko jëggaani fu ne ñu ne daal ne serait-ce ñu créer benn équipe boo xam ne équipe communale la boo xam ne Thiénaba gépp ñoo ciy bokk ci lool nag bi ñu àggalee nag liggéey bi yëpp nag ñu fas ne ko jébbal dimanche ci loolu nag ñu ci woo ñëpp jaar nañ fi ñu war a jaar wax nañ ko le maire wax ko la sous-préfet euh, ak ñi nga xam ne ñooy ay autorités yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi ñëpp ñoo xam ne ñi ngi gravir autour de l'esport euh, jaar nañ ci ñoom waxtaan nañ ceeg ñoom fexe nañ tamit ba nga xam ne euh, ñi ngi koy jéem a tasaare tasaare bi nag lii moo ci gën a ëpp solo muy média bi ñëw taxaw jël ñu ñu wax ngeen diviser ko su ko defee population bi ñëpp jot ci ñu ciy convier ñëpp nag képp kuy personne ressource dëkk ba Euh, te fas yéene bu cene ba développé nga gis ci sa bopp ñu ngi lay woo ci ndaje mi bu boobaa nag ñu ñëw defar lépp defar bureau bi ba mu gën a baax defar commission yépp su ko defee nag ñu fas yéene sóobu ci nga xam ne mooy liggéey bi liggéey bi nag ñu nit def nañ ci en avance parce que tey nii may wax ak yéen euh, affilié nañ euh, fay nañ suñu affiliation au niveau de la fédération sénégalaise de football muy toll ci cent cinquante mille fay nañ ko tey euh, CBAO banque CBAO lañ koy versé versé nañ ko tey ba jot nañ suñu quittance di des nag mooy xale yi yéen ñi ngeen xam ne nag yéen a bëgg sport di football te tey yàlla mën naa def ñu am am Sadio Mané Euh, ñu leen di woo ngeen ñëw jàpp ci yëf yi jàpp ci liggéey bi ñi mën a euh, diriger nañ ñëw ñu diriger ñi mën a football nañ ñëw ñëw nañ ñëw football parce que ñu nit loolu donc lañ ci jublu euh, fexe ba nga xam ne Thiénaba fu ñu jëm fu ne rek dinañ mën a xam ne ñii doomi ba lañ te sport a leen ñor ñu ci woo ñëpp nag dimanche boobu ñëpp ñëw ñu daje fii ci sous préfecture bi defaraat lépp parce que ñu ne li ñuy bañ mooy parce que dañuy départ te départ bu xasee faussé rek lépp day faussé euh, li koy faussé nag mooy nit toog fële ne yëguma waxuñu ma ñu bëgg nag ñëpp yëg ñenn ñi envoyé nañ leen message ci seen whatsapp yi yenn yi dugal nañ ko ci groupe yi yenn yi def nañ ko comme nii woo leen ngeen ñëw euh, rajo ku ñëw taxaw cene euh, ba Thiénaba Thiénaba 24 ñëw taxaw cene Thiénaba TV ñëw taxaw nga dirigé ko yow it ngay nit koo xam ne vraiment ku ñu war a sant la ku ñu war a gërëm nga parce que ci sport presque def nga ci lu ne football nga euh, jaar nga ci lu jaar ci lu ne wax dëgg yàlla ñu nit ñu ngi lay ji tàllal loxo yéen en tant que média tamit ngeen ñëw gunge ñu ci liggéey bi parce que liggéey bi tamit ñu ko def mu am mu am impact àgg fi mu war a àgg te yéen médias yi jàpp leen ci kon nag yéen ñu ngi leen di woo yéen it ci assemblée général bi lépp loo xam ne war nañ ko def ñun en avant dafa def nañ ko appel bi ci des nag dañ koy bàyyi ak Ablaye Diaw mu mu 10 lay doon 10 mm-hmm. heures dix heures ci suba lañ koy lañ ko fas yéene def comme xajuñu ci salle nag damaa bëgg rek ñu def ko ci en plein air nga xam ne dinañ teg saisi waa ligue bi dinañ ñëw ñëpp dinañ ñëw gunge ñu ci parce que vraiment ñëpp kontaan au niveau de Thiès autorités yi ñëpp a ngi ñuy woo wax dëgg yàlla di soññ ndax vraiment lii lu yàgg war a am Thiénaba la lu yàgg war a am Thiénaba la parce que Thiénaba bañ dalee football ba tey parce que man maa ngi commencé football mën naa ne en 89 man ak yow ñoo ci demandé woon boobaak léegi amuñu équipe communale kon donc nag yàlla buy dox di dox di dox ba euh, deux mille vingt 2022 ñu samp une équipe communale bëgg nañ ñëpp ñoo gunge ñu ci jàppale ñu ci ci wàllu ASC yi nag euh, muy zone bi euh, Ablaye Diaw la ñuy jox mu def appel bi woo ñi nga xam ne mooy ñooy président zone yi ñooy président ASC yi wala secrétaire général ASC yi wala trésorier ASC yi wala joueurs yi nga xam ne ñu ngi ci ASC yi parce que ASC yi bari nañ su ko defee ñoom it ñu ñëw ñoom ñëpp participer ci ci lii nga xam ne moom lañ fas yéene demal njàmme daal loolu moo newoon solo su wax ji euh, li des nag mooy ñu yegg ci euh, ñu commencé ko ak bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin vraiment kontaan nañ fépp ñu nit euh, biñ koy door ñu bari jàppale nañu mm-hmm. parce que tamit dugg fédération dafa jafe boo xoolee ren cinq équipes lañu affiliées au niveau de la fédération sénégalaise de football kon nag donc ñun suñ ci bokkee nag parce que ñu bëree déposé mm-hmm. parce que daaw daaw amoon nañ sax ba yaakaar ne daaw nañu affilié mais ren la ko yàlla dogal vraiment suñu grand yi sonn ci lool parce que fépp fu ñu mën a tàppe rek pour que yëf yi mën a gaaw mën a jàll ba nga xam ne équipe communale bi dina samp taxaw jéem nañ fa vraiment ñuy jaajëfal ku mel ni mbay mbay ñang bas parce que tamit mun ma wax te jaajëfaluma ko parce que vraiment sonn na ci lool lool lool lool lool lool lool au niveau de la fédération lépp lu ñu kii rek bu ma nee mbay acca mbay na ma acca vraiment ñu sant Ablaye Diaw aussi parce que ñoom it dox nañ ci li ñu ci war a dox kenn ku ne fi nga féete ndox nga ci li nga ci war a dox. ñëpp di jiital ci néew bi Baye Assane yàlla yàlla oyofal yan bi ak ñëpp ñi nga xam te ni ci arrondissement ci commune Thiénaba ah, di am mbégte ak bànneex rek euh, ñëw fii euh, teew fi teewaay boo xamante ni jeunesse bi lañ fi teewal mais en particulier jeunesse bi des sports donc li nga wax am na solo donc Thiénaba FC bi taxaw na démarche yi ñu ci def duñ ko wax parce que yow déjà wax nga ko processus bi yëpp. mais dañoo téye leen waa Canaba rek xam ne tamit kër euh, du xëy xëy taxaw il faut que ay nit ñooy jóg wala dëkk nit ñooy jóg fexe ba dëkk ba sa bañ sañ ci dëkk ba suñu taxawlee dëkk bi nag après nag ñëpp ñoo ko bokk ñun loolu lañ doon def ak Canaba FC metti woon na yombul woon wante nag ah il faut que tam ñu jaayante comme sport moom moo moo moo ñu ñor euh, comme ni nga ko waxee moom itam dañ koy jaajëfal parce que procédures yu yëpp metti woon na léegi mais yàlla àtte na aussi lépp lu ñu soxla woon yàlla def na am nañ ko ci l' essentiel que na Canaba taxaw rek te équipe commune bi la donc équipe commune bi nag bu ñu waxee commune bi nag bàyyiwuñu benn village 38 villages yi nekk ci commune bi yëpp ak amoo yëpp ci lañ bokk euh, loolu moo tax euh, ñu teew fii en tant que koo xamante ni sport ci lay yëngu te euh, d'ailleurs le les mouvements associatifs nga xamante ni moom mouvement nawetaan ak mouvement de jeunesse yëpp la ñu parce que soo gisee commune bi dafa am deux zones a bi fi nekk fii ak la zone 10A bis bi nekk Bangaaj keroog bi ñu demee final Bangaaj bi yaakaar naa foofu véhicule nañ ko te wax nañ ko président de zone ba suñu xamoon nii lay demee sax dañ koy invité moom moom mu ñëw donc doxal ba nga xamante ne tey muy zone yëpp ñoo ci bokk yam tey tey peut-être fii lañ ko toggee mais ASC communal la ñu wax te bu ñu wax ASC communal nag ñëpp la concerné donc kon à tout un chacun ñu ngi lancé un appel à toutes les ASC président ASC mun ñoo jot ñëpp nag mais président ASC yi bëri jot nañ leen Euh, ak trésorier parce que ASC bu nekk minimum woon nañ fa deux wala trois personnes ñooñu nekk suñu relais ba nga xam ne assemblée générale bi ñoom ñëpp incha allah ñoo ngi leen di xaar foofu dimanche le dimanche le 4 décembre à de 10 ci kanam sous-préfecture muy la zone nord aussi tamit woo nañ ñi nga xam te ñooy suñu répondant foofu muy le président Dieng ak membre bureau de zone ba yëpp woo nañ leen te ñoom chaque ASC tamit jot na message bi romb nañ sax romb nañ sax euh, les ASC dañoo dem ba ci les personnes ressources ak les bonnes volontés yi nga xam ne nekk ci commune bi yëpp képp ñu am numéro muy politicien muy acteur culturel muy képp koo xamante ni Thiénaba soxal na la rek donc woo ñu ngi lay woo ci rendez-vous boobu te Iliman dafa wax lu am solo donc lii ñëpp ko bokk donc ni ñu bokkee mairie bi lañ bokki ASC ci waa mooy Thiénaba FC bi kenn ku nekk war na ci dugal contribution te dañuy tout keroog cité naa ko en exemple amul am na commune yu ñuy jigee defoon seen ASC tudde ko ASC communal mais malheureusement bi ñu faussé le départ ASC yi existé tuñ déggatoo leen sax au niveau régional te ñun tamit comme li olof di wax aussi boo gisee lenn mu def mu nekk erreur erreur bu da nga éviter soo gisee président Ilimane sonn ci oote bi loolu kese la ñun ñoo ko dox ba mu sotti waaye moomuñu ko ñu ñëpp ñoo ci bokk yem. képp koo xamante ni tey Thiénaba FC intéressé na commune bi intéressé na la ñi li ñuy lancé un appel ASC yi nag bu ñu waxee euh, football en particulier ASC yi moom kenn jiituwu ci donc ñoo ngi ñaan président ASC les dirigeants les supporters parce que tamit lu waay wax wax aussi fañ jëm aussi rendez-vous la boo xam te ni ñëpp lañ soxla comme ñëpp lañ soxla aussi tamit ñu ngi ñaan tout un chacun daal dimanche donc looy def nga bàyyi ko le 4 incha allah nga ñëw ñu ànd ko ci jàmm ak salaam ba Thiénaba FC fii na parce que ñu li ñu bëggoon mooy Thiénaba FC taxaw comme taxaw na nag dañoo togg ba mu pare nag yàq ko ñëpp ñoo ko bokk képp koo xamante ni tey war ngaa mën a séddu wala war ngaa mën jël responsabilité Thiénaba FC ñu ngi lay tàllal loxo. tey Ilimane mooy président bi euh, ñun li ñu doon def yëpp c'était provisoire dañu doon def rek pour rafetal pour parce que tamit moom bu toogoon croiser les bras ma croiser les bras El Hadj croiser ñaan kon wala mbay kon lii du taxaw il faut que ay bon volonté ñooy taxawal ba mu sotti nag après ñu woo leen kon rendez-vous incha allah ñoo ngi ñaan ASC yëpp nañ ñëw ñu def ko ci jàmm ak salaam te suñ ko defee nag ba pare nag li ci des nag moom incha euh, yoo xamante ni bureau bi ñuy fal dinañ parce que tamit ñun mun parce que sport ak politique dañoo lié dañuy ñaan képp koo xam ni yaa ngi am ndomba ndomba tànk si commune bi ñu ngi lay ñaan jour boobu loo mën a bàyyi loo mën a def nga bàyyi ko te ñëw xam ne commune bi moo soxla sport bi mooy le facteur mooy facteur bi nga xam te ni mooy boole ñëpp mooy boole opposition boole pouvoir te fii ñun ñëpp vraiment li ñu boole mooy la commune de Thiénaba te Thiénaba SC bi dañoo bëgg incha allah waxee. fi ñu dégg ay Sadio Mané wala yenn club yi nga xam ñoo gën a kaw ci ci Sénégal ñu dégg fa Thiénaba FC dañuy jouer régional dañoo bëgg chaque année aussi tamit ñu jouer palier bu ñu romb rek ñu ñu avancé ko mais ak dañ gërëm aussi mbay comme ni ko Ilimane waxee ak ñaan ak Ilimane ñii parce que moom moo ñu mag fuuf su ko neexoon day dem toog ni grand yi def mu def ko mais defu ko da cee sonn tout le temps day jël xaalisam jël temps di ñu contact su ko neex mu ne loolu ci am bi ñuy dem gendarmerie def ay enquête boobu ci fii amagu sax poste gendarmerie mais fu nekk dem nañ fa xaalisam def na ci communication lu nekk mais tey noonu la ab dëkk aussi ay nit ñooy sacrifié wu donc defal dëkk ba mu baax après ñu jébbal ko waa bi nag donc ñiy ñaan daal rendez-vous boobu allah képp ku ko man euh, dimanche xat na wante nga bàyyi activité bi nga mën a def nga ñëw xam ne la commune moo soxla la jeunesse moo soxla Thiénaba FC rek moom moo ñu ñor li ñu ñor daal mooy ah, li ñu taxawal mu am tànk kanam te bañ am tànk ginnaaw ñu ngi ci ñaanal ñëpp nag di ci gërëm ñëpp di gërëm ñi nga xamante ni mooy le les les journalistes yi nga xamante ni ni comme ni ko Ilimane waxee tey suñu mënee wax par communication aussi tamit yéen aussi tamit gàcce ngalaam kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di jox rendez-vous ñëpp incha allah le 4 décembre. Ah, jërëjëf jërëjëf euh, Abdoulaye jaw di secretaire euh, général bi waaye jërëjëf Ilimane Dieng di président euh, Thiénaba football club muy TFC. Euh, kon dégg ngeen communication bu leer bi nga xamee ni ñoom yëkkati nañ ko rek jëmmale ko ci population bu commune bu Thiénaba euh, ci outil boo xam ni euh, outil de la jeunesse laa koy tuddee mu nekk mbir moo xam ni ñoom liñ ci war a dox yépp dox nañ ko ba jëmmal ko ba nga xam ne nag li ci des mooy woo population bi woo jeunesse bi woo sportifu commune bi yépp commune yépp nag bu ñu ko waxee bàyyiwuñu benn gox bàyyiwuñu benn dëkk bàyyiwuñ benn benn amoo ci biir euh, commune u ba bu ko defee ñu ñëw dimanche euh, le 4 décembre euh, bu 10 heures jotee ñu ñëw ci buntu sous préfecture ñu toog foofu rek li ci des ñu waxtaane ko falaat bureau bu bees bu ko defee rek daal di jëm ci liggéey bi kon ñoom tamit am nañ jaajëf joo xam ni balaa population bi daje jaajëf jooju dinañ ko yëkkati en tant que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk relais euh, population bi ak ñoom ñu jaajëfal leen ci seen démarche yi nga xamee ni def nañ ko euh, ak taxawaay yi nga xamee ni def nañ ko ba lii sotti ñu war koo jébbal askan wi euh, di leen jaajëfal di ñaan yàlla yàlla na yàlla fay ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa waaye jaajëfal tamit presse bi nga xamee ni ñoom lu jot rek dinañ ñëw relier ko daat koy dégtal ñi nga xamee ni ñooy population bu Thiénaba yépp di wax rek ni na ñëpp ñëw na ASC e yi ñëw na sportif yi ñëw